la ilaha illallah xanaa xamoo xaxaaru gii nii. moo tax Modou Lo nangu te bëri Ama Baldé. Ah, yaa xaxaaru ah ah ah, ah, ah. dafa yor xaxaar. waaw dañ dañoo xaxaaru Modou Lo dana jafe lool nga dégg Modou Lo ak Sa nañu. lu tax loolu. Modou Lo bu amul lu dindi xaxaaru gi. du bëri Ama daa la ko wax tey. Modou Lo moog bëri Balla Gaye moo yem ci moom. ah Balla Gaye moo ko xaxaar. xaxaaru gañ ko woon ca Balla Gaye xaxaaru gaa dañagul est-ce que yàgg may dégg. kon bu bëree waxtee daanu rek. bu bëree ci famille boobu. Uh-huh. yàlla mën na ko ci bañ a may ndam de. waaye ci kaw. dindiwul xaxaaru googu. cuun lu loxo def loxo mën na ko dindi. wallaahi wallaahi. su di nee xaxaaru googu. moo tax amaan na bàyyi xel boppam. bis bu ko mënoon nee bismillah. Uh-huh. ah xamal ni Modou Lo pare na ci moom. Modou Lo dafa am gêne pour bëre ak Ama xam-xam laay waxtaanee. Hmm. ndax xaxaaru gaa tax. Hmm. Modou Lo mi ci digg guddeem. Hmm. Balla ñëpp xam nañu fa tabaarakallaa mi ngi ci baisse de forme comme ni ñu koy waxee waaye suba bu bëree waatee Balla Balla daan ko. da koo jékku da kaa waaye jékku ko nag day taxu la Balla tee mën na ko aal Sa Thiès la Balla tee mën na ko aal Ama te Balla sax lam tee alalu Ama la woon. hay ah. <laughs> ama bu ko amoon Balla Gaye coow combat Modou Lo Balla Gaye bu njëkk ba ñun ñëpp ñoo ngi fàttelu yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana bàyyi amaa bi mu génnee di wax ak lañ ko tuumaloon falay yàlla ko yàlla yërëm te xare ko àjjana kon fa tabaarakallaahu laaw ñu gën a xuut mm. ci waxtaan mm. waaye xaxaaru gi mm. ku ko am ci diggante combat Sa Thiès yaay daan Sa Thiès ak Reug ku ko ci am yaay daan sëriñ loolu sax bëggoon naa fan ñu taxaw ci ndax ku ne xam na ni actualité la macha allah dimanche la 5 mars la. Mhm. muy combat boo xam ni ñaar ñu tolloo la. ñëw ñaar ñoo tolloo combat tolloo victoire kii am deux défaites kii am deux sans verdict mu mel na ba pare tolloo taxawaay. Mhm. ñoom ñaar ñëpp di ay ndaw ban jànkat nga ci mën a am. mooy ñoom ñaar ñëpp laay wax kenn ku ne sa sa sa ndam bu ko wékk ko wékk ci gàllaaj kenn da wul kenn. maa lay wax loolu. te combat bi combat Balla Gaye la. maanaam. <laughs> yàlla yàlla doon sutura ci barke yonent bi. seen làmb jooju ñoom ñaar bu ko kenn teg ci gàllaaj kenn ku ne yor nga gàllaaj ci loo wóolu ci loo wóolu kon gàllaaj gi dana fa bari waaw rëg-rëg yor na gàllaaj ci lu wóolu Sa Thiès yor na gàllaaj ci lu wóolu waaye combat boobu noonu bu ko kenn teg ci gàllaaj mbër mu ñu takk doo ko gis mbër mu ñu jekk doo ko gis maa la ko wax tey. ñoom ñaar ñëpp dinañ indi kenn ku ne pare nga pare nga ci loolu. kon ku daan yaa mën. wér na làmb sax ku daan yaa mën. Uh-huh. waaye combat boobu. Uh-huh. du combat gàllaaj. dafa nga gis combat gàllaaj. Uh-huh. mbër jékku nañ ko ba muy daw. mbër ñëw na ci làmb ñëpp xam ne tey du bisam. waaye combat boobu koo gis tey bisam lay doon. yaa ma waaye ku am yaa xaxaaru yaa mën yaay daan. maa la ko wax. Sa nee na am na loo xam ni Reug Reug moo ko daan indi ci làmb moom yor na loolu te dana ko indi. waaw moo tax ma ne la waaye Reug Reug tamit toll na foo xam ne amatul lu muy soor Sa ci gàllaaj moo tax combat bi day waar. moo tax combat boobu noonu ku ëpp doole yaa daan. Mhm. maa la ko wax ku ëpp doole gën a dal. yow yaa daan du combat gàllaaj. <laughs> combat boobu moom ñoom Sa Thiès ki mu fay xaalisam. Mhm. ci wàllu gàllaaj. Mhm. wàcce wàccoo nangu rëg-rëg ku mu fay sam ci wàllu galaaj kooku wàccoo na ak rëg-rëg ndax kenn ku ne fexe nga ba jóg sa mbër lu wér mooy sa mbër la ak mënam ak entraînement am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 mën a jariñu macha allah ci ni ngeen ko xamee livre bi nga xam ni sëriñ bi bind na ko di asmaullahi alhusna secret des quatre-vingt-dix-neuf noms d'Allah macha allah sëriñ bi bindal leen ci livre tur yàlla bu ne sëriñ bi indil leen définition bi tur yàlla bu ne sëriñ bi wax leen lim bi mu jàpp tur yàlla bu ne sëriñ bi wax leen njariñ yi nga xam ne nekk na ci saa su ne ba pare nag def ci lu espécial muy macha allah toog di leen jàngalaat livre bi toog di leen ko waxtaanal macha allah duñ sori

def suñu réew mi jàmm yàlla yokk wërsëg yeeg teraanga yi seen tur ñoo ngi lay nuyu. Mm-hmm. di ñaan lépp loo xam ne wax nañ ko fi comme xam-xam. Mm-hmm. yàlla miy barkeel yàlla nañu yàlla defal barke ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. macha allah amin ya rabbal alamin Serigne yaakaar naa comme ni ko mbokk yi mii ne. Mm-hmm. waxtaan wi saa su ne ñu tàmbalee woon ka ca arrahman. arrahim almalik alquddus macha allah ba. bërki démb ñu waxtaanee. al tey Serigne ñu war a waxtaanee ban fa tabaarakallaahu comme niñ ko faral di waxee rek cuun yàlla moo ne walilaahi asmaul xusna fad'u biha njëkk ba mu ne addu'u ni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen mel ni dañu ko yàlla fan lañ lay ñaanee mu ne walilaahi asmaul xusna fad'u biha man yàlla maa am tur yu tedd tur yu jëkk ñaan leen ma ci tur ma wuy leen cuun moo xam turu yàlla yi ba mu ci doon melo yàlla la mhm. mission boobu la yàlla di dox ci tur boobu cuun mhm. fa tabaarakallaahu mi ngi mel ni da nga am justice mhm. problème mu justice ñu la demal ministère de la justice euh, intérieur mënu ci dara intérieur mënu ci dara finance mënu ci dara ñu ne da nga am problème mu finance ñu ne demal ministère de la finance euh. da ngaa soxla wàllu postier wàllu kaaraange ñu ne demal ministre de l' intérieur turu yàlla yi benn bu ne ministère la oh. ci yàlla arahman <laughs> yàlla mooy borom yërmande fii ci àdduna ñu ni mooy borom yërmande gu rëy gi rëy gi yërmandeem rëy moo tax mu daj képp àdduna ñu ne araxi bi ñu ni mooy borom yërmande bu mat bi moom yomal xiyaam la am na ñu naan arahman yàlla mooy yërëm ku yàlla mooy yërëm bépp mi def ci àdduna arahim yàlla mooy yërëm ku ko neex ci yomal xiyaam boo ñëwee ci yàlla tiifu yàlla mooy ñëwantal kon bi alxafaaru yàlla mooy jéggalaa kon bi kon fa tabaarakallaahu tur yàlla yi benn bu ne meloo la ca yàlla waaye benn bu ne yàlla ci lay taxaw pour doxal li mu doxal ñëwoon nañu ci arrahman arrahim almaliku alquddus tey nag ñoo ngi ci yaa qahaaru cuun alqahaaru tur la ci turu yàlla yi mu nekk tur boo xam ni yàlla bu amul woon tur du mën a nekk yàlla. moom yàlla waaw moom yàlla bu amul woon du mën a nekk yàlla. lu tax loolu. cuun alqahaaru mooy yàlla mooy nootaakoon bi cuun yàlla bu ñu bëggee moom nekk buur. Mhm. bu ñu mënta noot cuun yàlla dese naa doon yàlla. ah <laughs> yàlla noot gim ñu mën a noot moo tax mu mën a rey sunu baay duñu wax dara. Mhm, mhm. xanaa xamoo mawti bu départ dem di jëli ruwu nit. alqahaaru lay lay yóbbaale. yàlla bu ko àllul woon alqahaaroom mooti du mën dara ci nit ñi. mbindeef la rek. mbindeef la ku yàlla bind la waaye yàlla kàttan gi mu koy roof. muy oh. qahaaru nootaakon bi. Mhm. dominé ñu. Mhm. def te duñu wax. def luñ bëggut a def ndax bokk na ci prix alqahaaru. Mhm. alqahaaru yàlla moo lay def loolu loo bëggul. kan moo bëgg ñu rey sa baay. kenn kan moo bëgg ñu rey sa kenn kan moo bëgg ñàkk. kenn kenn yàlla lay noo defloo ko defloo la ko. mootu buy dem alqahaaru la ko yàlla di àll. Mm-hmm. cun yàlla mooy gañe ku ko neex. gañe waaw alqahaaru. Mm-hmm. cun yàlla mooy maîtriser ku ko neex. waaye cun yàlla bu ñu maîtriser wul nan la sa bàyyi di deewee nga jël ko yóbbu ko ci morgue bi. Mm-hmm. ñu waajal ko yàlla maîtriser la rek. da jooy sax tuuti waaye da ànd ak sa dal. ndax yé yére li jënd dëj bi. naan nañu woowu ji waa baas sa dëju baay yaa koy organiser. wér naan nañu xool kay gas armeere hmm. kay su kay gas fa ñuy suul sa baay yaa koy maîtriser. la ilaha kaw noo koy jullee percal ba. Hmm. parfum ba. Hmm. ñu dem ba dugal ko ci biir bàmmeel nga jël suuf naan man maa yor sama sama baay ci biir bàmmeel. Oh. kan moo ko bëgg. <laughs> koo xam ne ba muy dund ku ko sotti woon suuf nga xuloo ak moom wallaahi tey yow yaa jël gas ba mu xóot suul ko ci ba pare jël suuf sotti ca alqahaaru oh. yàllaa ñu noot cun yàllaa ñuy def loolu lu ñu bëggul cuun yàllaa ñuy def loolu lu ñu bëggul cuun xanaa xamoo alqahaaru kattan gi yàlla am nootaakoon bi ñu yàlla mën a noot moo tax keroog yowmal xiyaam dañuy rey ba pare est-ce que xam nga mooti day rey di rey di rey di rey di rey ba ñëpp jeex yàlla ni ko reyal malaaka yi muy rey di rey di rey ba rey jibril ñu ni ko yàlla kenn desatu fi moom day fàtte boppam. pour moom bokk ci waaw pour bokk ci dee daa métti Oh. moo tax mënuñoo fay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi Fatumata binti Rasul hmm. maami Cheikh Ahmad Tidiane yaakaaru Cheikh Ahmadu Bamba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax kuy war naan la la ma Seydina Muhammad defal hmm. kaay ma wax la ko rasulullahi lan lan defal sallallahu alayhi wa sallam doy na sëkk li tax yàlla mu bind ñu loolu da nga koy jël teg ko fële hmm. cu dama lay jëlal métti tu dee cuun jëlal ràbb yu gudd boo xam ne toll na sunu jëmm yi ràbb bu gudd nga jël ko teg ko ci safara ba mu xonk cur ñu roof ko ci sa jëmm ji ba mu fay laa ilaha illallah ñu teg beneen jëlaat beneen ràbb bu tollaat sa jëmm ji ñu roof ko sa digg ba mu génne sa tànk yi ba mu fay ñu jël teg beneen ba muy téeméeri ràbb oh. malaal ko mawti bi mu ñëwee ci Seydina Muhammad ni ko a jël sa ruu uh-huh. Rasulullah ni ko uh-huh. damaa bëgg nga wax la métti métti du dee nan la dee méttee oh, douleur bi waaw douleur bi mu wax ko ko uh-huh. mooy li ma la wax jël ràbb hmm. roof la ko ba mu sedd ci yow ñu roccuwaat ko jëlaat beneen mu ne ko sama xeet bi yëpp seen métti dee kenn ku ne yóbbaale naa la quatre-vingt-dix-neuf pour cent yonent bi sallallahu alayhi wa ko kenn ku ne yóbbaale naa la quatre vingt pour cent cuun ñun méttitu de ñun benn la ñu dund Seydina Muhammad moo yóbbaale sunu 99. la ilaha illallah kan mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax nañu ko jox àqam. wallaahi moo tax nañuy bare ay salaatu ala nabi ci Seydina Muhammad sallallahu nañu jox rasulullah ay xorma. Mm-hmm. nañu nañu julli ci Seydina Muhammad waxuma la nekk obligation bi nga xam ne yàlla du ko digle. Mm-hmm. waaye julli ci Seydina Muhammad rek ngir sant. yàlla def gim la def jullit wallaahi wallaahi ngir sant yàlla bokk gi nga bokk ci ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam cuun mawti mm-hmm. rey ñëpp mm-hmm. rey malaayka yi rey seydi amlaaki muy jibril mm-hmm. taxaw nag ni yàlla ñëpp jeex nañu yàlla ni ko demal nga rey sa bopp mawti pour wane la yàlla dafa da ko nootoon uh-huh. da ko nootoon ba mawti xamul woon métti métti tuddee daan ko yëg rocc ruu doom ja di jooy bàyyi ja di jooy nga dem sa yoon suba nga duggaat kër ga nga duggoon. la ilaha kii bu amoon xol wala kuy yëg du ko man waaye yàlla nootoon xol ba keroog nag ba ko yàlla ni ko rey sa bopp si lay mucc di soog a xam ni. métti métti dee oh, oh. waaye yàlla nag après day bàkk. wallaahi cuun xanaa xam mooy yawmal qiyaam yàlla buy bàkku ci yaa qaharu lay bàkkee. yaa qaharu ci lay bàkkoo. bu ñun ñëpp deewee. Uh-huh. ba asamaan si kenn desitu fenn. Hmm. yàlla day jël ndam di wër. naan li ma ne lillaahi waaxidul qahaar tey kan mooy buur. Euh, ana Macky Sall ana Joe Biden ana roi Mohammed VI ana borom alal ana borom teranga yi tey kan moo sañ a taxaw. la ilaha illallah li ma neel mulki yow ma ana ngeen ñun ñëpp ñu ne nekk suñu biir nekk suñu biir bàmmeel di xaar. bispenc moom mu tontuwaat boppam. moom mu tontu ni lillaahi waaqidul oh. buur bi. ñal na yàlla. wallaahi. yàlla boobu noonu. mooy waaxid. wallaahi moom dong képp. wallaahi qul wallaahu ahad. wallaahi allaahu samad. lam yëlit walam yulat walam yakun lahu kufuwan ahad. wallaahi yàlla juruñu ko jurul kenn. kenn du hmm. waaye nag alqahaaru mooy nootaakoon wi yàllaa leen noot ba dugalee seen biir bàmmeel yi tëj Euh, kon cuun alqahaar tur bu am doole la. Hmm. alqahaar tur boo xam ne mënul woon ñàkk ci tur yàlla yi. wallaahi xam nga lillaahi waaxidul qahaar sax naa la ci may dara. cuun ku la firil allah firiwul la tur. allah waaw allah firiwul jë. yàlla. ah allah allah la. loolu mooy ah, ah. introduction bi ma leen may su ma bëggee waxtaanee allah. allah allah la mooy. allah allah la kenn amul pireem. kenn amul pireem. Ah, ñu ni mooy buur bi mooy yàlla mooy. déedéet allah mooy moo tax allah doy waar. Oh. comme que ci xaxaaru laay nekk. Ah. dama leen di may introduction su ma bëggee waxtaanee turu yàlla bu naan allah. la lan mooy allah ak kan mooy allah lan moo tax allah di allah. <laughs> yàlla bu yàlla tas yaakaar ci barke yonent bi tur alqahaaru limam 306 la. waaw. Mhm. cuun xanaa xamoo 306 sax moo jàpp ñetti amin amin amin gi nangu wala daalin amin boo ko addatee 102 multiplié par 3 moo jàpp 306 bi alqaxaaru wallaay waaye cuun alqaxaaru bëri njëriñ mhm. cuun alqaxaaru lim mën mhm. da nootal dëkk ba dëkk nooy ci yow nootal dëkk mooy day fexe ba dëkk bi dëkk bi jàppandi ci yow loolu li jënd ci dëkk yi mu sotti ah. loo jéem ci dëkk yi mu sotti dëkk bi di sa dëkk dëkk bi jig la dëkk bi jig la doo fa soxla këyit mu sot mu yomb mm-hmm. doo fa soxla liggéey mu jafe mm-hmm. doo fa soxla xaalis mu jafe mm-hmm. njëriñu fa tabaarakallaahu alqahaar bi ci jiitu mooy day nooyal dëkk ba dëkk bi nooy noo koy defee noo koy defee da ngay jël dëkk ba nga ne moo xam Sénégal Sénégal 1281 la uh-huh. moo xam Maroc am na limam moo xam Italie am na limam moo tax France francia la ñuy wax ci arab am na limam moo xam dëkk ba nga ne ngay jël adat ko xam limam di ko liggéey ci yaa qaharu dëkk ba dana nooy ci yow loo fa jéem mu sotti loo fa bëgg am ko kon fa tabaarakallaahu kenn du turu yàlla bu naan alqahaaru waaye cuun alqahaaru moo lay nootal nga am téere ba bëgg kaa tabax téere cuun xanaa xamoo nag am téere li muy li muy yomb yomb yomb yomb tabax kaa jafe <laughs> ñaata téere yu fi nga romb ci àll bi. ak bari ay nit a ko moom. wallaahi waaye ciment ak fer problème bi. <laughs> kon képp koo xam ne am nga terrain bëgg koo tabax. Hmm. tur yàlla alqahaaru mooy indi ciment. ah cuun terrain da ko am du jàppandi terrain dafa am mbir. tere day dëgër bopp ndax këru jaambur lay doon. Hmm. waaye ku am terrain bëgg ko tabax defal dog bii ma lay wax quatorze jours wala quatorze personnes. boo ko bëggee liggéey yow kese. da ngay dem ci teere bi chaque jour ba mat 14 jours. bis bu ne nga liggéey yaa qaxaaru yaa qaxaaru 6688. su dee am nga 14 personne da ngay ànd ak ñoom. 13 personnes yi liggéey yaa qaxaaru 6688. 14e personne bi liggéey yaa qaxaaru 6692. ngeen ñaan tëfli ko ci suuf si wis ko ci terrain bi. incha allah rabbi balaa muy mat 40 jours nga fondu ma. yàllaay <laughs> noot suuf si. wallaahi ni ko fii R plus 2 jekk na fi. yàllaay not suuf si. wallaahi ni ko fii R plus 3 jekk na fi. Mhm. waaye bu dee amoo 14 personnes. Mhm. yow chaque jour del dem ci terrain bi di def yaa qaxaaru 6688. 13 mhm. jours 14e jour bi nga def yaa qaxaaru 6692. incha allahu rabbi. yàlla dana la suturaal. ba sa teere bi nga mën ko tabax. wallaahi waaye cuun bokk na ci njëriñu yàqaxaaru hmm. képp ku bëgg noot nit. noot waaw boobu déggal la. Hmm. moo xam nga am ay doom dégglu la yàqaxaaru mooy sutur. Hmm. nga am patron bëgg mu jox la bopp yàqaxaaru mooy sutur. waaw xam-xam laa waxtaane du ma ko nga am jabar bëgg sa jabar déggal la yàqaxaaru la <laughs> yow mi am jabar bëgg sa jëkkër déggal la yàqaaru la. ah jigéen ñi sax ci yàqaxaar. cuun xanaa xamoon ni jëkkër. war a jabar war ko déggal. Uh-huh. noonu la ni jëkkër jabar war ko déggal noonu la jëkkër war a déggalee jabaram. Uh-huh. ah cuun nag cuun jëkkër day déggal jabaram góor du dëgër bopp. koo xam ne da ngeen pare pour ànd. Uh-huh. muy neex ak muy naqari. cuun boo ko déggalu nan ngeen di dundee lu neex. wallaay boo ko déggalu nan ngeen nan ngeen di surmonter lu naqari. ki nekk ci problème. sa jabar am solution bi. nga ne doo ko déggal kañ ngeen génn ci problème bi. Ah, ah, ah, <laughs> góor day déggal jabaram. de bees wàcc na de. beneen kay. <laughs> góor day déggal jabaram ndax dana yombal lu bari seen say dana neexal lu bare seen sëy. góor du rëy. mënoo toujours yow yaay am dëgg. déedéet mënul ne. boo dul déggal sa jabar bu sa jabar amee dëgg doo ko nangu. déedéet. te cuun yàllaay jël dëgg. yàllaay jël xéwal yàllaay jël teraanga def ko ci làmmiñ ku ko neex. cuut gone dana wax sax dana la digal nga jëfee la ko nekk digal barke am ci. wallaahi wallaahi waaw boo doon déggul sa jabar doo déggal sa doom. Uh-huh. fan ngeen jëlee dëgg. xam xam. moo tax ku bëgg noonu nit. Uh-huh. moo xam sa jabar. Uh-huh. moo xam sa doom. moo xam ku mënti doon. sa patron. dangay ngay weddi yaa qaxaaru. suba ak ngoon 306. yaa qaxaaru. suba ak ngoon 306. yàlla yàlla doole sutura ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cuur moo xam kuy jongante uh-huh. moo xam da ngay fubal uh-huh. donte ñun duñ ci ñaan uh-huh. moo xam fa tabaarakallaahu mbërum làmb nga donte ñun duñ ci ñaan wala basket wala bépp jongante boo xam ne dañ koy def xëccoo la xëccoo la am kuy daana ku dul daan cuun yow boo bëggee ca jongante boobu yàlla may la ci ndam da ngay def deux mille cent quatre-vingt-douze yaakaaru ngoon bu mbir mi desee juróom-ñaari fan. boo koy def koo bëreel daan ko koo fubal gañe ko. ah ah ah. <laughs> koo basketal gañe ko. Uh-huh. boo leen boo koy def dem entretien. Uh-huh. yaa qaxaaru yàlla dana la notal ki nga jàkkaar lool ba fa tabaarakalaa du la loo xamul. yàlla lay notal xol ba. Uh-huh. cuur xanaa xamoo yaa qaxaaru gi ci la mbër di noté moromu mbëram. ba def ko nii rek mu daw. am na nuñ koy liggéeyee. boole koog bopp xar. ak ñaan gu gudd te mil nga ciy liggéey pour wala yaa xaar dafa am doole. mil nga ciy liggéey boole kaag bopp xar am noo ko liggéeyee insha allahu rabbi mooy waral mbër di liw toog mbërëmu mbërëm ñu toog ba si ak keneen ki daw. wér na gis nañ ko ba tey. ci turu yàlla ñu naan yaa xaaru la. Mhm. yàllaa la ko nootal ba du la ñeme. wallaahi. cuun xanaa xamoo malaakal mooti bi ma la wax ci yaa xaaru. Mhm. cuun nit ki am na xooleen ba muy xool bu ko xool rek ne mooti la gis. wallaahi wér na. jàkk moo ti boo ko xasee ba ni jàkk dootoo mënati xef la ilaha illallah lu ñu wàccee sa bët bët bët nga xool ko wallaahi doo mën a randal sa bët côté droite wallaahi doo mën a randal sa bët sa bët côté gauche moom rek ngay gis la ilaha ndax boobu xaxaar gi muy ñëwaale moom moo tax lii ku kuy bëri mhm. am nuñ la ko liggéeyalee mhm. insha allah rabbi man damay wax xam-xam waaye du ma ñaan ci làmb waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni xam-xam boo gis ilmu kullu shay'in afdalu min jahliha uh-huh. xam-xam boo gis xam ko moo gën nga réere ko mhm. moo tax lépp luy xam-xam fexe nañ ba ndar képp ko mhm. bu ñuy waxtaan waxtaan ci xam-xam mhm. mbër mu ko def koo leewtool mu daw xanaa xamoo xaxaaru gii nii moo tax Modou Lo nangu te bëre Ama Baldé ah, ah, yaa xaxaaru ah, Ama dafa yor xaxaar waaw dañ dañoo xaxaaru Modou dana jafe loolu nga dégg Modou Lo ak Sa nañu lu tax loolu. Modou Lo bu amul lu dindi xaxaaru gi. du bëreeg Ama daa la ko wax tey. Modou Lo bëreeg Ama moog bëreeg moo yem ci moom. ah Balla Gaye moo ko xaxaaru. gañ ko xaxaaru woon ci Balla Gaye xaxaaru gaa dañagul est-ce que yaa may dégg. kon bu bëree waatee daanu rek. bu bëree ci famille boobu. yàlla mën na ko ci bañ a may ndam de. waaye ci kaw. dindiwul xaxaaru googu. cuun lu loxo def loxo mën na ko dindi. wallaahi wallaahi. su ñu nee xaxaaru googu. moo tax amaan na bàyyi xel boppam. bis bu ko Modou Lo nee bismillah. ah xamal ni Lo pare na ci moom. Modou Lo dafa am gêne pour bëre ak amaa xam-xam laay waxtaanee. Hmm. ndax xaxaaru gaa tax. Modou Lo ci digg guddeem. Balla ñëpp xam nañu fa tabaarakallaa mi ci baisse de forme comme ni ñu koy waxee waaye suba bu bëree waatee Balla Balla daan ko. da koo jékku. da waaye jékku day taxu la Balla tee mën na ko aal Sa Thiès la Balla tee mën na ko aal amaa te Balla sax lam tee alalu Ama la woon. hay ah. <laughs> Ama moo ko aaloon Balla Gaye. coow combat Modou Lo Balla Gaye bu njëkk ba. Uh-huh. ñun ñëpp ñoo ngi fàttelu yàlla ko yàlla yërëm te xare ko àjjana bàyyi Ama bi mu génnee di wax ak lañ ko tuumaloon. Faalay yàlla ko yàlla yërëm te xare ko àjjana kon fa tabaarakallaahu du ñu gën a xuut. Mm. ci waxtaan. Mm. waaye xaxaaru gii. Mm. ku ko am ci diggante combat Sa Thiès yaay daan Sa Thiès Reug Reug ku ko ci am yaay daan. Serigne loolu sax bëggoon naa fan ñu taxaw ci ndax ku ne xam na ni actualité la macha allah dimanche la 5 mars la. Mhm. muy combat boo xam ni ñaar ñu tolloo la. ñëw ñaar ñoo tolloo combat tolloo victoire kii am deux défaites kii am deux sans verdict mu mel na ba pare tolloo taxawaay. Mhm. ñoom ñaar ñëpp ay ndaw ban jànkat nga ci a am. mooy ñoom ñëpp laay wax kenn ku ne sa sa sa ndam bu ko wékk bu ko wékk ci gàllaaj kenn da kaa appelé wul kenn. maa lay wax loolu. te combat bi combat Balla Gaye la. maanaam. <laughs> yàlla yàlla doon sutura ci barke yonent bi. <laughs> seen làmb jooju ñoom ñaar. bu kenn teg ci gàllaaj kenn ku ne yor nga gàllaaj ci loo wóolu. ci loo wóolu ci kon gàllaaj gi dana fa bari. waaw rëg rëg yor na ci lu wóolu. Mhm. Sa Thiès yor na gàllaa ci lu mu wóolu waaye combat boobu noonu bu ko kenn teg ci gàllaaj mbër mu ñu takk doo ko gis mbër mu ñu jekk doo ko gis maa la ko wax tey. ñoom ñaar ñëpp dinañu indi forme kenn ku ne pare nga sa pare nga ci loolu. kon ku daan yaa mën. wér na làmb sax ku daan yaa mën. Uh-huh. waaye combat boobu. Uh-huh. du combat gàllaaj dafa nga gis combat gàllaaj. Uh-huh. mbër jékku nañ ko ba muy daw. mbër ñëw na ci làmb ñëpp xam ne tey du bisam. waaye combat boobu koo gis tey bisam lay doon. daa ma dégg. Uh-huh. waaye ku am yaa xaxaaru yaa mën yaay daan. Eh. maa la ko wax. Sa Thiès nee na am na loo xam ni Reug Reug moo ko daan indi ci làmb moom yor na loolu te dana ko indi. waaw moo tax ma ne la waaye Reug Reug tamit. Uh-huh. toll na foo xam ne amatul lu muy sóor Sa Thiès ci gàllaaj moo tax combat bi day waar. moo tax combat boobu noonu ku ëpp doole yaay daan. Uh-huh. maa la ko wax. ëpp doole gën a dal yow yaay daan du ko bàggal laaj <laughs> combat boobu moom ñoom Sa Thiès ki mu fay xaalisam mhm. ci wàllu gàllaaj mhm. wàcce wàccoo na ak moom rëg-rëg ku mu fay xaalisam ci wàllu gàllaaj kooku wàccoo na ak rëg-rëg ndax kenn ku ne fexe nga ba jóg sa mbër lu wér li mooy sa mbër la ak mënam ak entraînement am <laughs> waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa avant avant avant ñuy tàggoo. Mhm. Sa démb dafa def benn révélation xam leen ni kat. Mhm. dafa am kenn ci ñi nga xam ne ay nawle yi muy àndal la. Mhm. ni ko man daal chrétien laa njaago laa. waaye boo daanee rëg rëg danaa tuub dugg ci lislaam ah kon de war na tax jëpp ñaan Sa Thiès daan kooku nag dugg ci lislaam waañ yokkul diina ji dara. Uh-huh. moom bu duggee ci diina ji moom mooy yokkoo waaye yokkul diina ji dara uh-huh. diina islam boo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba ngi ci uh-huh. diina islam boo xam ne Cheikh Abdou Qadir Jeylaani ngi ci diina islam boo xam ne Ababacar ngi ci mm-hmm. diina boo xam ne Serigne Babacar Sy ngi ci mm-hmm. diina islam boo xam ne fa tabaarakallaa kilifa yu baax yaa ca mm-hmm. kooku bu duggee ci diina moom mooy yokkoo waaye diina bi di yokku ci moom waaye terewul mbëbëb la mbébétam la uh-huh. kooku bëgg na tuub daa nisir te nisir xam nañ ko ci lislaam mooy yow yàlla soo ma defalee nangam man naa tuub dugg ci diinal islam wala yow yàlla soo ma defalee nangam man naa wóor téeméeri fan wala quarante jours wala cent jours jaamoo la ko wala yow yàlla boo ma defalee nangam naa génne cent xar def ko sarax wala yàlla boo ma defalee nangam naa tabax jumaa jaamoo la ko nit sañ na ko wallahi kon moom daa nisir yàlla na yàlla mottali nisiram ci barke amiin yaa rabbal ndax nag wax dëgg yàlla ah kenn ku ne war ngaa mën a dugg ci diinal islam ci hmm. loolu rek la def. bu dee loolu kese la. ah yàlla ko yàlla may ndam waaye maa ngi koy xamal ni ko bu Sa Thiès daaneeg bu daanu yëpp na kii xanaa déggul sunu noddu yi. laa ilaaha illallaah. hayya ala salaat. Hmm. kaay ci xéwal mi. bu Sa Thiès bu daanul yëpp ñëwal sunu xewal bi. ñëw ci noflaay gi. wallaahi bu Sa Thiès daaneeg bu daanoo yëpp. ñëwal sunu teraanga gi. ci tawféex gi bu Sa Thiès daanoo ba daanoo yëpp ñëwal nekk mbokku diine Serigne Touba. nekk ci yokkute gi. kon fa tabaarakallaa loolu lañ koy wax. Mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla doole sut ci barke yonent bi yàlla doole sàmm doole aar te barkeel. amiin macha allah Serigne Djibril Niang le marabout des grands hommes wax naa leen ko ba tey ni daw leen ngeen wuti livre bi. ci 77 677 77 08 ma bamtul leen ko 77 677 77 08 secret des 99 noms d'Allah sëriñ bi bind ko tur yàlla yi 99 yëpp bu ne mu bind ko wax naa leen ko sànq indil leen li limam indil leen ay njariñ pour seen adduna jàkk waaye seen yowmal xiyaam mooy gën a jàkk incha allah taala ngir jàppandi gi nga xam ne lii fa jàppandi na ko am na une version ci livre gi am na arab pour yéen ñi nga xam ni daara ngeen jàng kon daw leen gaaw wuti livre gi sëriñ bi kàddu gu mujj gi Ah, fa tabaarakallaahu di ñaan yàlla yàlla dolli sutura amiin yaa rabbal aalamiin yàlla dolli sàmm dolli arta barkeel ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam-xam lañ doon waxtaane mhm. yee umatu Seydina Muhammad moo ñu tax a jug ah, di ñaan yàlla yàlla def barke ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam tamit am nga livre bi lépp loo ci jëfandikoo yàlla miy def barke yàlla yàlla def barke ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakatuhu macha allah Serigne Djibril Niang le marabout des grands hommes jàmbaar yi diine l'islam muqaddamu Seydina Ahmad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 yàlla buur yow nga def de àndandoo do dox di si booru sa ngor de wóor daa